وكرمنا على النبي وعليه أجمعين سلام ربنا دائما عام بالتمام يعلو الجبال مريد الرم يجوك فتي حزنا di kontaan bu baax euh, ci li nga ma laaj et puis ma ci sawar tontu ndax euh, àdduna xam nañu suma diggante Aziz Aly rawit na suñu papa nag aale Baye Aale Ndiaye mi nga xamante ne mooy suñu lépp ak ñi nga xamante ne ku ci mel ni kon njaag Ndiak ñoom Masata donc xale yi ak jigéen ñi mag ñu ndaw ñu soxna yi ñoom ñëpp c'est la famille gis nga ñu toogee nii noonu lañ yàgg a toogee Aziz nekk suñu lépp yàlla suñu borom dogal du ñu dugg dara te du ko yëg. ñu def dara te du ko yëg nekk suñu kilifa yu ñuy respecté ñu gis lu baax li nga xamante ne moo ngi koy def ci guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tarixe tiijaan mu ci góorgóorlu di ci farlu lu mu am ak lu mu amul di ko ci def te yàlla tax e yàgg na ko def e ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokku mu yokku يحل الجبال مريد الرمي يجوك فتي حزنا